maa ngi leen di fay. tey ñu fekk la fi nga xamante ni moo di kër Baye Abdou Karim si màggal gi euh, sa digganteeg Baye Karim balaa ñoo ñëw si li nga xamante ni moo di série bi. gannaaw bu ma nuyoo seen internet ci ba pare damay sant yàlla di julli ci yonent bi bu ma jullee ci yonent bi nag ba pare dama ci teg sama sang bi nga xamante ni moo di fàllu awo bu sa jax réew ma caamiñal ma réew ma kunta sama waa ji nga xam ne moo ma defar démb defar ma tey di sant sëñ fàllu di sant sëñ fàllu di sant sëñ fàllu ba muy juróom-ñaari yoon bu ma santee sëñ Fallou nag ba pare dama ci teg ki nga xamante ni moom la ma booleel mm-hmm. muy Baye Karim di ko sant tamit bu muy juróom-ñaari yoon borom makarimal axla bu ma santee Baye Karim ba pare nag dama si teg ki nga xamante ni moo di soxna may laxaat macha allah la ay sax ñu ñëw nga dalal nu dugal nu fu baax di ñu berne na namuñu dara ndax moom Mbacke Balla jërëjëf. ban ban relation nga am ak ki nga xamante ne moo di sëñ Abdou Karim yow sëñ Fallou mooy sa wasila wa wala Abdou mooy sa xam nga yàlla dafa am lu garaaw lu mu def mooy nga bëgg nit koo musta gis muy aw bu Bousso bëgg nit koo xamante ni ay nataalam rek ngay gis sëñ Fallou dama ko bëgg ba yemale ma koog dara man nit ma xam ne sëñ Fallou daf maa bëgg ba yow ma leew maag dara mm. boole maag ay njabootam te si kan la ma booleel muy sëñ Abdou Karim borom maag Karimal laa moom la ma sëñ Fallou booleel donc du ma def lu dul sant du ma def lu dul kontaan am mbégte di nekk fii tey nga tey fan ngeen ma fekk nindi ngeen ma fekk ke sëñ Abdou Karim kon man taalibe Fallou Awa Bousso bi bu ma ñëwee nindi ke sëñ Abdou Karim wàcc naa mm. jërëjëf waaw euh, dañuy ñëw si li nga xamante ne mooy série bi nga nekk Bour Gueweul mi ngi noonu léegi-léegi ñu ngi koy nuyu au passage fan yi a ngi toj yéen a ngi tukkal jamono waaw xam nga polygame dafa nekk benn phénomène bi nga xam ne dafa ñëw neex ñëpp ñëpp bëgg ko donc sant yàlla parce que ñu bëri def nañ produit te neexul nit ñi mais polygame dafa ñëw ñëpp adopté ko macha allah xale mag ak ndaw ñëpp bëgg polygame donc sant yàlla rek parce que tey mënoon nañ jël tey producteur bi munoon na jël xaalisam tey investir jël artistes yeeg yëpp tey kenn du seetaan mais tey yàlla dafa def ni tey polygame ñëpp a koy seetaan xale mag ak ndaw ñëpp ay seetaan polygame donc sant yàlla. soppe yi niñ la wëree lan ngay waa sant yàlla parce que du ñëpp la ñuy wër du ñëpp ñoo am lii sant yàlla maire yeeg xale yeeg ñëpp a ngi taxaw te sama jëmu ju xeebu ji ñoo tax ñu taxaw donc lu ma def lu dul sant yàlla sant yàlla sant yàlla rek laay def aw ma leneen lu may wax lu dul sant yàlla rek waa parce que du ñëpp la ñuy wër du ñëpp la ñuy bëgg man Amina sama jëmu bu xeebu bi bu ma demee ba nit ñi taxaw fi def ful ndax man damay sant yàlla rek wallaahi barke sëñ Fallou mm-hmm. sant rek mm-hmm. looy wax mbokk internet yi nga xamante ni dañ lay bëgg waa xanaa di leen kontaane rek di leen wax ni leen gis nan soutien bi gis nañ ñaan yi gis nañ ñu ngi gis lépp macha allah à travers les commentaires ñoo ngi gis lépp donc di leen sant rek saa su ne ndax lépp ñoom la ndax gannaaw yàlla polygame ku ne xam na ni euh, ci YouTube lay daw mais macha allah polygame dafa mel ne série buy daw ci télé ñëpp ko adopté commentaire yi que ce soit mu nekk commentaire bu négatif wala commentaire bu positif lépp dañ koy sante aaw buuru këram dàq naa ko loolu ngay wax nànk ñaareel dina taxaw yow ngay wax waxu aaw dama lay laaj moom laay tendance yaa ngi may jàkkaaroo ni Fatou Kiné yow laay waxal yow dama ni ki ne laa jàkk yow laa jàkkaarloo man Amina maa ak maa géré maa ànd ak sa jëkkër nindi jeex na waaw. waa gis nga bu man la àndal. kontaan naa jëf waaye sant sëñ Fallou encore jërëjëf merci. indi fay bu baax a baax. tey ñu fekk la fi nga xamante ne mooy màggal Touba bi fekk la si kër Baye Abdou Karim sa diggante ak Baye Abdou Karim. Euh, ni nga ko waxee rek day sama papa. Mm. di sama wéruwaay di sama sëriñ. di sama wasila di sama lépp di sama sak dama ni ci Serigne Saliou laa jébbal ci yoonu murid sukk jox ko sama bopp waaye ginnaaw moom Serigne Abdou Karim Mbacke borom Makarimal Akhlaq damaa yëkkati damaa sagal damaa teral tey jii bu ma mel nii ñu may dégg di ma tudd Serigne Abdou Karim Mbacke ndax dama ko seet si fii mu gis ma safoo ma boobu ba tey ko ma gis safoo man damaa jàpp ni kenn bañu ma xam nga lu tax moom damaa bëgg te ki nga xamante ni mooy ibnu sëriñ lu yor borom borom kun fayakun lu mu wax mu am lu mu ne na nekk mu nekk moo ñu nekk man nag tey nii rek laa mën a doxee ci biir këram fas yéene nekk fi ay taalibe rek rek toroxlu ne ci ginnaawam mbàkke lu mu bëgg moom la ñu bëgg lu mu bañ xalaatuñu ko def la lay yëpp fan sa fan loolu ak cant la ndax lii ci Serigne Saliou lañ ko gis mu bëgg xale. bëgg ay ndongo. ndax Serigne Saliou laa dégg ma toog làmminam sama nopp mu ne xale. du àndut ak ku am leer. ndax da ko yëg fa moom. te dafa am ñaar ñu yëg leer ci góor. mu ne ma ma ne ko mooy kan mu ni góor ak mu ni mu mu ni ndaw ak jigéen kon bu la xale yi toppee ne man aw ma leer ndax ndongo rek la waaye damaa xam ne safoo gi ma sëriñ bi safoo mooy ruus rek waaw ku ne ci am loo ci waram ndax sëñ Abdou Karim Mbacke ku fi ñëw tey moo la fenn ma ne Touba yaatu na waaye nim li sori na ku bàyyi lépp ñëw fii dama ne fii lay mbir mi fii la mbir mi xewee fii la mburu mi xoyom xoyomee fii la di defaroo ma ne lu fi yàqu amu fi ilaa nafsin bi laa dara moom la sëriñ bi nekk ne sa wet sa euh, Amina dama je love Amina je Amina je Amina je l'aime ah, ah mi ne de très très clair ma deuxième femme xaritu jëkkëram mi ngi noonu jaa la dafa xew moo téye réew mi fi mu ne nii waaye tey dañ ko fekk fi nga xamante ni moo di kër sëñ Baye Abdou Karim Mbacké tey soxna Bator ñëw fii nan la def ak soppe yi. waaw sama soppe yi di rek di wax ni man kontaan naa ci ñoom ndax li ma bëgloo ci ñoom mooy bëgg gi ak safoo gi rek. ak wo gi ak yëgoo gi nee naa màggalu sëñ bi mhm. ndax sama soppe bu nekk defal nañ ma ci nag bu nekk nañ ma ko bu may nañ ma ko mhm. bu dee or may nañ ma ko xaalis jox nañu ma ko mhm. ndax ñoom xam na man ni ma mel ci bis bi moo tax lu nekk teralee nañ ma ko dama naan man dama jég saay xool tuuti yuñ ma may man lii mën ma ko yóbbu Tuubaa kon awma seen fay yàlla mi seen fay yal na leen yàlla fay te li ngeen ma jox yëpp ngir jëmmi bés bi yàlla na ko suñu borom delloowaat waaye balaa maa tëj rek sama dernière question sëñ Muntaxa joxe na ay kàddu yoo xam ne jub na avant màggal gi di ñëw ne soxna yi ak ñi nga xamante ne ñoo di góor yàlla yi dafa am benn tere bu ñu leen di bàyyiloo loolu ban kàddu nga si am en tant que artiste en tant soppe. waaw comme ni ko waxee rek ndax nee naa ndigal moom jafe mm-hmm. ndax ndigal le wax nañ ko kon daanaka gis nañ ne nit ñaa koy jëfee mm-hmm. te yàlla na continuer jàmm ak salaam di ko ziar bu baax baax mhm. mais ñi nga xamante ni def nañ ko wala ñoo ngi ko doon bëgg waaja waaj def tey lan nga leen di wax ndax ñu bàyyi ko. ñi bëgg a def lan. ñi nga xamante ne dañuy ñëw Touba indi fi greffage wala ñi nga xamante ne dañuy def ay wee wala genre góor yi nga xamante ne dañuy wattu dégradé tey bu amoon moo boo leen di wax kàddu conseil. waaw mbir mi tolluwaale rek. Mhm. rek. xam nga nit moom am na loo xam ne ci xol la nekk nit ma nga koo gis mu correct lool lool lool fekk na ne xol ba la ca nekk leerul mbir mu tolluwaale rek nanu yàlla xiir rek ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci loo xam ne ni neex na ko ñu ciy nekk rek mbir mu tolluwaale rek mais nan nga yi ngeen mbëkkante fii nii si waa jàmm yéen relation bi jàmm rek boobu léegi yaa ngi gis ak man ñoom ñu ngi taxaw di ko di waxtaan ndax jàmm rek ñoom tamit dañoo bëgg sëñ bi lool sax mm. ñoom dañoo bëgg sëñ bi lool heure boo ñëwee leen si fekk ñoo bokk lu ñuy def amuñu xiiroo amuñu ngaayoo ku ci gis sa morom yaa ngi koy bëgg sa foog ñun bokk ci lu ne ci ci aar bi ñu nekk mooy ci théâtre bi ñu nekk damay wax noonu ñun ñëpp dañoo bëggante ñun boo ñu fekkee festival ñu toog danaan ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay mm. parce que aar noonu la demee mm. ndax ñu noonu la ñu tàggatee ñu nekk ci booba léegi ñu leen gis ñu ngi daje ak ñoom ñu waxtaan ak ñoom kon jàmmale lañ seet soxla Bator lu